أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني أو سيورثه في رواية أيها المستمعون الأوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen soppe yi am di jàmm yi ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo seen émission xam sa diine ci seen rajo Safina FM 98 point 2 di nuyu fadilatu Cheikh Thierno Hamidou di ko ñaanal tawfiix sutura yàlla jàppale ko ci mission bi bu baax incha allah di nuyu waa Safina Saadaat yi ñoom ñëpp. zukuran wa inasa di jël nuyoo di ko jox Ceerno mu joxal ko kilifa gi Ceerno Bachir ayadahu llahu wa nasara wa amada sixatahu wa ataala baqaahu yal nu ko yàlla defal mu yàgg suñu kanam ndax suñu njiglaay la yàlla taas ñu ci ay barkeem ba ci barke maamam yu tedd yu baax yi niki noonu di nuyu Assayda ñumma nga xamante ne moom la yàlla teg ci bërëb bi noo dénk ko di ko ñaanal moom it bu ñu ko nuyoo nuyoo njabootam yépp mooy njaboot gi fi ne di ko jàppale ci liggéey bi jëm ci wàllu technique ci wàllu information ci wàllu animation ñépp ñu ngi leen di nuyu ku si ne rek di la ziyaar di la ñaanal sutura jàmm yal na ko yàlla defal di nuyu suñu wayjur alxaaja Kumba Ñaani Saar di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla tawfiix sutura moom it yàlla yàggal ko fi yàggal ko ci kanamu njaboot gi yàlla sàmmal ñu ko aaral ñu ko di nuyu suñu papa El Hadj Abdallah Diop fii si Scat Urbam bàjjen Ndey Mati allah moom it ci ñaan yeex yëpp yàlla sàmmal ñu leen. yal yàlla dolli seen sutura njaboot gi yëpp ñu ngi leen di nuyu fi noonu commandant El Hadji Mansour Niang bàyyiwuñu kenn ci njaboot gi ñu ngi nuyu ñëpp macha allah suñu yaay yi fi ne Adja Maymuna Diouf ñu nuyu ñëpp mu ngi jotal nuyoo ñum ah, personnel bi ñëpp ñëpp di am mbégte moom it di ñaan bàyyiwul kenn ñu ñaanal ñëpp ni ki noonu Adja Nogay Faal Adja Rakki màgget Diop ñoom ñëpp mu ngi leen di nuyu waaye xat-xat rek moo tax jamono bii déggu leen ko di nuyu soppe yi ñoom El Hadj Malick Ndonga Liggéey soppe yi maman Sahaba Diop ñoom ñëpp rek jël nuyoo di ko jox El malik mu jotal ñu ko soppee yi fu ñu mën a nekk dëkkandoo yi soxna Rakki Dia Adja Mari Diallo. Fat baaji nuyu ñu dëkkandoo yëpp macha allah ndax dëkkandoo jàmm sa gën imam Moussa macha allah te teyit ci loolu lañ fas yéene xam sa diine fàttalinte nga àbba rek làmmiñu imam Moussa su ko defee ci wax ci lan mooy dëkkin wu rafet lan moo ñu ci war ndax diine moom bàyyiwul dara ndax ku ne xam sa diine rek war nga xam lépp luy baaxal sa diine. ngir ëllëg nga bokk ci radiyallahu anhum wa radu anhu yal na ko yàlla defal suñu mag ñu baax ñi nga xam ne ñu ngi ñuy gunge jamono bu ne si ñaan ci àndax ñu nit ji woote macha allah Papa Amadou Sow rajo yokkute jamono bu ne rek waxam dégg ngeen ko bàyyiwul kenn dafay wax ne bu mënoon lim day yor micro bi rek benn par benn waaye axa koy lim na ñëpp ndax xolam ëmbal na leen cofeel yërmande ñaan ziyaar kon lim nañ ñëpp ci xolam macha allah te noonu la koy defee jamono bu ne loolu moo dal pa Amadou Wan pa Warga macha allah loolu moo dal El Hadj ngaala Ngala Dia macha allah di ko seet ci yaram wi bu baax loolu moo dal El Hadj du Seck macha allah ah ñu mel ni ñoom nag yal yàlla sàmmal ñu mag ñooñule yàlla dolli seen sutura defal leen wér. di nuyu Abdou Samba Ndiaye macha allah di ko ziyaar bu baax di nuyu Soxna may Maymuna Sall moom it macha allah. di nuyu El Hadj Yoro Ndiaye fii ci Scat Urbam moom it macha allah mu jotal ñun nuyoo waa Scat Urbam yëpp di ku bëgg a diine ku am yëg ci doom aadama moom it macha allah di ku topp rajo bi macha allah Abdou sëñ Yoro Ndiaye. Aminata Ndiaye kër Mbay Fall Amina Xuma Bambilor dem ba Yoof Adja Binte Silla waaye di nuyu suñu doom baay soxna Ngoone Ngom moom it la góor gi Amadou Sow di wax rek lay wax ginnaaw ba mu nuyoo Libaas Pam Mor ngi nuyu ñëpp. bàyyiwul kenn di leen ñaanal xam ne daal ku si ne mu ngi jaar si sa tour wax dëgg yàlla di la ñaanal yàlla di la ziyaar daal di am mbégte lool lool lool lool lool ci émission yi niki noonu El Hadj Omar Diagne ak ñoom ñëpp rek bàyyiwul kenn ne daal mu ngi nuyu ñëpp ñi fiy def ay waxtaan kontaan na ci yéen moom soxna Ngoone ngoom macha allah di nuyu tamit euh, soxna su Ngom fii ci Patte d'Oie Aminata Sow Pikine macha allah Pape Mor Libaas ngeen gitul ñu nuyoo waa Yoff Abdoulaye Sarr Pape asan Gueye ñoom ñëpp rek Oumy Diop bu daan Ndeye Sophie suñu njabootu bopp njabootu rajo Baye Ngala Dia ñuy ñëpp jël nuyoo di ko jox xëri macha allah mu jotal ñu ko njaboot gi ñoom ñëpp rek ba sañu sa kàmbareen ñoom ñëpp mu ngi leen di ziar macha allah suñu papa gànn foofu it ñu ngi koy ziar tan roxaya yal yàlla sàmmal ñu leen yal yàlla dolli seen sutura bu baax. waa hôpital Abbas Ndao rawatina waa réanimation naa jibi nga jësal ñu nuyoo mbokk yooyu le waa daayira Houdia ñoom ba ñoom Adja Mbayang ñoom Nanteng Coulibaly macha allah Mamadou Sall fii ci Grand Yoff Abdou Aziz Fall Cambérène maam Mbayam yaa Aminata Diène bu yaay maam wara ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax fàttewu ñu kenn yenn yàlla sàmma ñu leen Sali Diouf bu El Hadj Baye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Marème Ly fii ci ñoom ñëpp. waa usine benn tali nday faatu ñoom ñëpp Ahmed Ibrahim fële ci géej dawaay Muntaga Gay ñoom ñëpp rek macha allah ñaam ngom mariste waa Marème Ndiaye fële ci caaro yi Amadou Diallo Grand Médine ñoom ñëpp rek macha allah yal na yàlla sàmmal ñu leen kon mbokk yi déglu Safina FM 98.2 waaye fàttew ñu it benn yoon suñu soppe suñu xarit maam Issa macha allah. ci ñaaram yi ci yëg-yëg yi ñu ngi koy ñaanal moom it tawfiix yal yàlla sàmmal ñu ko la defal ko sutura bu baax tey xam sa diine ginnaaw bi ñu fi ñëwee waxtaane li nga xamante ne mooy li ñuy xamal diine ci wàllu teggin ndax jikko yonent bi dafa doon wax ne bu'ithtu li utammima makaarimal axlaax dañ ma yónni ngir jikko yi baax te jikko mom ngay fekk ci julli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari julli ci lol la lay tagat ci la lay yare ndax julli bu baxé lépp bax moy da fay defar jikko yi ci yoy nak ci ngay fekk jëflante bu rafet lol motax tay xamsa diine ñëw ci walu diine moy dëkkandoo tax mané ne ñu ngi nuyu imam Moussa nga xamné émission bi non la tudde waaw dëkkandoo jàmm sa gën muy mag mu baax macha allah waaw di ku ku yiw ku civilisé macha allah di ku sérieux li muy def ah ñu mel ni moom ci kër gi ñoom mag ñi ko ci tudd rek macha allah yal nañu leen yàlla sàmmal bu baax a baax a baax baax kon nag mbokk yi déglu Safina FM 98 point 2 tey ñu ngi ñëw ci ngëneel li lislaam def jagleel ko dëkkin ak ñett dëkk bu ñu waxee loolu nga xam ne lislaam màggal na jox na cër lool dëkkandoo moo tax yonente bi wala dañ ko koy askanale al jaaru xabla daar mu ne boolaa ut kër utal dëkkandoo te gis nga dëkkuwaay bu ne njëgam mu ngi aju ca ña ko dëkkee rek moo tax ku am jàmm rek ña nga dëkkal may nañ la jàmm moo tax jibril alayhi salaam jamono bu masaan ñëw ci gën ji mbindéef sallallahu alayhi wa daana ko bàyyiloo xel dëkkandoo su fekkante ne da nga laaj sàmb wala soxna xadi ñi ne ci technique bi nga ne leen lan mooy dëkkandoo ñu ne mooy ki nga dëkkal waaye jarul ngay seeti fu sori neel dëkkandoo mooy ki ma bokkal studio bi ki ma gën jige foo toog daal ka a gën jige rek boolaa laa cité kooku mooy sa dëkkandoo bi gën a yey ci yow parce que jamono boobu moo nekk ak yow kon nga dégg foofu ne dëkkandoo amul kenn kuy dox ci kaw suuf foo nekk du dul am nga fa dëkkandoo te nag al aqrabu awla ku gën a jege gën a yey kon nag jamono bi ki nga bokkal bërëb ngeen toog wala ngeen bokk oto di dem wala mu ngeen bokk yoon di dox kooku sa dëkkandoo la ci instant boobule kon moo tax yàlla subhaanahu wa taala di ñu wax importance su dëkkandoo ni mu mel moo tax mu ne wabudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ixsaana ixsaan boobu it mu ne bu mu ci yem ci ay waajur boo noppee ci ñoom wa bi zil qurba wal yataama wal masaakin wal jaari zil qurba wal jaaril junub wa saahibi bil janbi si suuratu nisa gis nga bon suñu borom bi subhaanahu wa taala di wax ni jaamu leen ma bañ ma bokkaale ak lan waaye way juri na ngeen def njekk ci ñoom lu ngeen man waxtaane woon nañ fi fan yële ci xam sa diine tarbiyu say wajur ni mu amee solo diine place bi mu ko jox kon nag tey moo tax ñu indi dëkkandoo mu ne loo man ci ñoom moo xam jegeñaale la ci wàllu deret moo xam meeñ walla gaño walla boog nekkul ñooñale moo xam ku oomal la wala ku oomalul moo xam ku ñu yor la surga la wala yu ni mel la njirim la walla lu ni mel mu ne ñooñu ñëpp nanga def njëkk ci ñoom nanga rafetal ci ñoom waaye bu paacee ñooñu it mu ne la dëkkandoo yi moo xam dëkkandoo bu la jege ci wàllu deret wala dëkkandoo la boo xamante ne mbokkoo gi am na waaye soriyaane lool wala bokk koo xamante ne da ngeen dëkk rek te bokku leen xëj na du jullit te nga nekk si diini lislaam moom mu nekk ci beneen diini bu mu mën a doon rafetal rek la yàlla bëgg rafetal boobu nag mbokk yi déglu Safin FM 98 point 2 lislaam waxu la nga rafetal ci ñoom mooy nga topp leen maanaam ñi nga bokkulul diine waxul nga topp leen déedéet waxul nga roy leen déedéet waaye na nga rafetal ci ñoom ci mu amelaat lépp loo xam ne ay relation humaine la diggante doomu aadama yi la na nga fexe ba rafetal amaana ngeen bokk bërëb bu ngeen di liggéey amaana ngeen bokk gox bu ngeen dëkkee yooyu yëpp day am moo tax mu ne na nga rafetal ci ñoom waaye nag ku si nag la nga jàppane loola mooy sa diine mooy sa pas-pas mu ne loolu na ngeen ko bàyyi ak ñoom kon mbokk mi yow mi déglu Safina FM 98.2 point 2 na nga góorgóorlu loo man ci rafetal te na nga xool bu baax yonente bi ni mu doon ñaaxe ñu rafetal ci dëkkandoo ci teral leen ci ormal leen ci wég leen moo tax muy wax moom sallallahu alayhi wa sallam ne wa man kaana yu'min billahi wal yawmi al axir fal yukrim jaarahu faneen mu ne fal yuxsin ila jaarihi boo demee ci muslim di nga fa fekk xadis boobule di nuyu oustaz Moussa Balde di ko seet bu baax di ko nemmeeku moom it ci yaram wi macha allah borom xam-xam la ku yiw ku tabe lool ci xam-xamam macha allah ah ñu mel ni moom di nuyu ay may al ulama ñu ngi leen di nuyu bu baax niki noonu soxna Ngone Ngom moom it nee na mu ngi leen di ziar di bëgg lool. ci fàttali gi ngeen di fàttali nit ñi seen diine moo tax taxawaayu yonente bi rek la leen di xoole te loolu laa xarwa ndax al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoo fi wuutaakoonu yonente yi du ci alal du ci lenn waaye kat ci diine ci fexe rek dawa bi di continue kon nag moom mu ne mu ngi leen di gërëm di leen ñaanal ci loolu ci mission bi waaye di leen ñaanal yàlla it yàlla defal leen tawfiq yàlla dolli seen sutura bu baax a baax a baax a baax kon nag mu ne na ngeen ormal dëkkandoo yi ku gëm yàlla gëm bés pénc mu ne na nga teral sa dëkkandoo fal yukrim fal yuxsin na nga rafetal ci moom loo man bul gàtteñ ci dara te mbokk mi déglu it mbir mi dem na ba charia am fu mu ko teg ci bëggal ko yiw ci daxal ko sofaan ndax loolu ci ngëm yàlla la bokk sa dëkkandoo nga bëggal ko yiw daxal ko bépp sofaan mu ne loolu ci gëm yàlla la bokk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wallazi nafsi bi yeddi mu gëñ moom yonente bi xoolal li muy gëñ lu am importance mu ne gëñ naa ko ci yàlla mi nga xamante ne sama dund gi ci loxoom la ne la yuminu xat ab dun yuhibba li jaarihi maa yuhibba nafsi mu ne maa ngi leen di gëñal ne amul kenn kuy sa ngëm di mat lu dul ne la nga bëggal sa moom nga bëggal sa dëkkandoo amul kenn ku ngëmam di mat li nga bëggal sa bopp moom nga bëggal sa dëkkandoo kon mbokk yi nañu soppante nañu bëggante ndax mbëggeel yàlla moo koy def mooy fekk ñu xamewul woon mu tàppe leen ba danga naan ñoo bokk ndeyax baay ba danga naan ñii kenn mënul dem bàyyi moroom lan moo ko lal muy cofeel muy yërmande muy bëggalante lu baax bëggalante yiw muy bëggalante teraang waaye ku ne di moytandakul sa moroom safaan موم يرنت بموي وحاتني والذي يحسن إلى جاره هو خير الناس عند الله الله أكبر موني نغن حمنا كي رفتل سي دكندوم كوكو دال بوي سيت كو گن سيال بوي سيت كو اپ تير سيال موني جابل تي واجو جوغا خمنا موغي رفتل سي دكندوم موم يرنت بي خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبي وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره كون دك مباكي دكندو دفع أم صلى الله كون كن موي دكندو كون ورنغا لاج لاج بوبولي واو كي يننتي بي جوخ امبورتانس بيلي كي الإسلام يكتي تكا دايو بيلي كي الإسلام تك لي نكو دف لي ملغني كو باي لي ملولوني واو كي موي كان نغني كوكو موي دكندو mooy ki nga xamante ne jaawaraka yaa nii sawaun kaanam musliman aw kaafira dafa dëkk ak moo xam jullit la wala du jullit dafa dëkk ak yow rek waaw kon nag bul am nay limite ndax fii la yem wala nangam ay wax ju bare bare bari ñëw na fi xëj na jotaayu waxtu bi waaye daal képp koo dëkkal ci bërëb rekk koo dajal ci bërëb koo yendu ndool koo finaana ndool koo bokk ndox moom yoon di dem moo xam dangeen war wala da ngeen di dox wala fu ngeen dajale ci bërëbu liggéeyukaay wala fu ngeen di lijjantee dara la ngeen daje fa instant ba ngeen fay nekk moo xam lu gàtt la wala lu gudd la lool mu ne jamono boobale ñu ñëpp ay dëkkandoo lañ ci yow mu ne la la war mooy rafetal jëme di ci ñoom. mbokk yi déglu Safina FM 98 ñu ngi ñëw ci xam sa diine ci dëkkandoo nga yonente bi doon wax na jibril daal daanama ko dénk ba sax ma naan dëkkandoo kon ndeke ku fi jóge sa dëkkandoo yi danañ la doon kon mbokk yi bu ñu yaakaar ne dëkkandoo rek mooy ki ma bokkal kër gi déedéet dëkkandoo wax naa la sànq ki nga bokkal bérébu liggéeyukaay ki nga bokkal yoon ki nga bokkal waruwaay ki nga ki nga yooyu ci marché bi ngeen daje fu ngeen mën a daje ci ci tool yi la ci fu mu mën a doon ci baaw école yi la ci fépp fu ngeen mën a daje rek kooku mbokk yi jàppal ne kooku mooy sa dëkkandoo kon yàlla moo la ko tàggatal kon am na lu la war hunaaka xuquuq hunaaka xuquuq diggante dëkkandoo yi ay àq yu bare bare bari tegu na fi bari na lool ñu am yuñ ci tudd rek masalan raddu salaam wa ijaabatu daawa fay nuyoo fay nuyoo ah wuyu su la woowee wuyu su la woowee mooy mu am dara xew-xew diine xew-xew bu baax mu woole ci masalan mu am ngente walla ceet yu ni mel xew-xewi diine yi mu woole ci te ngante amul mu ne bu boobaa ngir ak dëkkandoo mu ne nanga dem nuyoo assalaamu aleykum nga ne ko wa aleykum salaam fay nuyoo ndax ñaanalante la yéenente jàmm la ndax ki nga ne assalaamu aleyk jàmm yal na nekk ci yow doo ko ko wax ba noppi di ko yéene safaan nga boo doo toogee nit ki même si julli nga sëlmal ci sa ndeyjoor ne assalaamu aleykum te boo jógee yaa ngi naan ki ma fiital nii kat musiba yàlla na ko dal kon la nga doon wax ci yow la nga doon wax sa làmmiñ nekkul ci yow kon nañu yéenante jàmm raddu salaam assalaamu aleykum baat boobu bu jubee rek dafay tàppe ci xol nit ki def naan yow day ëmbal nga ko jàmm yow daal yéene nga ko jàmm moom it mu delloo la ko ne la wa aleykum salaam kon nag loo ci laat loo ci laat loo ciy dolli nga dolli ko ci te bu ñu ñu bu ñu ñu këf yóbbuñu li ma bëgg a wax foofu mooy ngay dem ci bërëbu liggéeyukaay yi boo ñëwee rek bonjour ah bonsoir waaw su ko defee boo ko deful ñu ne ah diw de serre la waaye boo ñëwee neel assalaamu aleykum ñu ne la wa aleykum salaam neel bonjour neel mbadda neel na ngeen yendoo neel jàmm ngeen good morning wala yaa xam waaye bul ñëw rek ne nangam waaye assalaamu aleykum ndax li mu ëmb yépp li mu ëmb yëpp ci turu yàlla muy assalaam nga yëkkati kàddu yooyule le su ko defee nag loo si teg si jàmm sante naka suba si naka ngoon gi ax ci langue boo ko man waxe loolu lislaam daxu ko waaye daal bi war a njëkk a jóg mooy assalaamu aleykum waaw kon nag nuyoo boobu dafa war waaw yooyu it dafa bokk ci àq yi nuyoo ndax jàmm lay andi moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne barayal leen seen nuyoo su ko defee jàmm bari ci seen biir même boo toogee nit ñi nga jóg génn même dem ci toilette yi danga nga yeesalaat njàpp danga defaat nangam wala génn nga am koo waxal tuuti ñëwaat fekkaat fi mbooloo mi yax ñoo ma toogaat soppa nañu soppa nañu nga nuyoowaat ah asalaamu aleykum ñu ne la wa aleykum salaam buñ ne la bari na e sa nuyo yi bari na waay ah déedéet kooku ñàkk xam waaw kon nag soxna Xadi mu ngi wax ne waxtu wi ñu yëgale not الشكر على البدر علينا كوكو رسول الله صلى الله عليه وسلم موم ني خمال لان موي دكندو كون نك مبوكي دغلو سفين اف ام 98.2 نيغي سين اميسيون خمسه ديني تاي نيغي سي والو دكندو Eh, su ko defee kon di nuyu Alioune Mbengue ah, muy nekkal fële ci Yoff Ndinaat ñun ñëpp ku fay déglu ñu ngi leen di nuyu di nuyu imaam Mohamed Ndoye imaam Alioune Badou Samb ñu ngi leen di ñoom ñëpp macha allah al aima wal ulama imaam Ousmane Faye mu gisal ñu nuyoo ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu imaam Ibrahima Ba oustaz Moustapha Diouf eh, imaam oustaz Abdou Dieye Samb Pape ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Ibrahima Sawale di nuyu waa association jàppoo liggéey macha allah Moustapha Cissé jiital ñu nuyoo bi nuyu soxna Binta Ndoy fële ci Yof Nangaañ Ibrahima Ndoy ñoom ñëpp ñu leen di nuyu fàttew ñu kenn di nuyu suñu yaay yaay Xadi Faal ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar macha allah yan yàlla dolli seen sutura di nuyu ki nga xamante ne mooy Mari Diallo fale ci Njaañeen macha allah sa seex mu ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuy sopp yëpp fu ñu mën a nekk Abdou Sarr Pikine Rue 10 ñu ngi leen di nuyu Ndeye Binta Konte ñoom ñëpp ñu leen di nuyu seen ñaan yi jot nañu ko yal na yàlla sàmm leen daam tura refi si soxna Binta Mbaye moom it macha allah soxna Coro Jaxate Géejawaay Babacar it moom it di soppe ba Samb fële ci Yoff macha allah ñu ngi leen di nuyu Ousmane Samb di nuyu Moulay Abdoul Aziz Mbeng macha allah Yoff daagu daan di nuyu soppe yëpp fu ngeen mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu émission xam sa kon yonent bi solo salaam mu ngi doon wax lan mooy dëkkandoo kon dëkk ñu ngi woon ci àq yi nuyoo wuyu ci suñ la woowee waaye woote bi na nekk woote boo xamante ne bu yàlla gërëm la waaw istajibu lillahi wa lirrasul iza daakum lima yuhyikum woote ci caaxaan kooku moom bul ci dem waaw waaye woote ci dëgg bu ngànt amul na nga góorgóorlu loo ci mën nga taxawee ko waaw bokk na ci nga fexe ba bul ko lor sa dëkkandoo bul ko lor ci wax ci dara tax ma ne la ni ngeen mooy te ndoku amaana yaa ngi góor góorlu bu baax waaye léeg-léeg njaboot gi léeg-léeg njaboot gi ndax kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi na nga góorgóorlu ci ñoom amaana doo lor sa dëkkandoo yi waaye xamalal njaboot ji ak dëkkandoo ne leen ah yéen day bu ngeen di waxtaan bu guddi jotee na ngeen wàccee seen kàddu ndax dëkkandoo yi am na ku liggéey woon bu wàcc war a dallu am na ku war a liggéey am na ku tawat nga ne njaboot gi na ngeen bàyyi xel ñooñu le bu leen yëkki seen kàddu ba mu jéggi dayo inna ankaral aswaati la sawtul xamiir wàccee leen seen kàddu wax ndànk wax ju dal wax ju yiw wax joo xam ne ku ko dégg rek doona ay ca moo tax suñu borom ne waxulu linnaasi xusna da ngeen waxax nit ñi wax ju teey wax ju dal wax ju tegginu di nuyu baax ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci oto yi di dawal ñii di liggéey ñii di dem ci marché yi ñii di dem faneen ak faneen di seeti ay mbokk ñi yëpp yal na yàlla sàmmal ñu leen yal yàlla barkeel yëngu yëpp fu ngeen mën a nekk rek yal na yàlla sàmmaleen aar leen kon yéen a ngi seen émission xam sa diine tey ñu ngi ci wàllu dëkkandoo su ko defee it eh, ligne bi mën nañ ko ubbi su ko defee muy 88 628 mooy guumu jokkoo gi su ko defee bañ lor dëkkandoo léeg-léeg it nga gis ni di nga toog ba mu yàgg rek am foo dem ñu baare yoon wa kon yooyu dafay xajamal dëkkin yow mbokk miy déglu Safina FM 98 point 2 tàggul sa dëkkandoo yi yëgal leen a ah, man day ëllëg man day dama am fii xew-xew xëj na danaa fi takk rajo xëj na mbooloo mi xëj na xëj na yooyu yëpp te sa dëkkandoo boo ko ko waxee rek dinga dégg sax léeg lekk mu ne la ah loo soxla ci kër gi rek mu ngi noonu parce que gis na ne yëg nga ko waaye boo waxuleex moom dina bëgg noppalu du noppalu xol bu naxari yooyu yëpp ay àq la kon nag nañuy bàyyi xel dëkkandoo wala jékki-jékki rek tànt ci mbedd mi ku waroon jàll léeg-léeg euh, soxla am ci yoon wi duñ mën a dem ñu wëri fu ne xat-xat ñëw te yooyu yëpp diine santaanew ko waaye nag dëkkin wu rafet man nga bu fekkee amoo foo ko def fudul foofu sa dëkkandoo yi ku ne rek yëgal ko ne mankat ah man kat ëllëg jàmm man bés sàngam amee naa xew-xew fii kat maa ngi jéggalu ci derangement bi maa ngi jéggalu ci nàngam dana laan waaw bismillah waaye nag bu fekkee yëgul xëy rek dégg coow li ñu baare mbedd mi càmbal càmbal ji wax dëgg yàlla dëkkandoo yonente bi nee na leen ko defee noonu man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir fal yukrim fal yuxsin ila jaarihi na rafetal si sa dëkkandoo yi kon mbokk yi déglu sa FM 98 point 2 nañu rafetal ba kàddu gi ngay yëkki sa biir kër na nekk kàddu gu woyof wala léeg-léeg ngay yëkki dara wala nga am looy def yooyu yëpp na nga sàmmwante ak dëkkandoo xam nga même boo demee ñu nekk tugal dañ la koy wax même boo nekkee sa appartement boo amee luy yëngu déranger da ngay toog tuuti rek police wala gendarmerie ñooy ñëw ne la ah yow yaa ngi déranger si lëkkandoo parce que dañu am ay numéro dañuy composé rek ñu daw ñëw xoolal ñu ñooy bëgg ak dëkkandoo bëgguñu nga lor masal islam kon nit yow sa dëkkandoo waxala waaw léeg-léeg ngay jëfandikoo dara nga ne ko ah man kat xëj na am na waxtu yoo xamante allo salaamaaleykum allo alo salaamaaleykum. maaleykum waa kay ñu ngi ziar bu baax. delloo man la xarit Sall. waaw xarit maa ngi ziar ja. <laughs> delloo ziar bu baax. Mm, naka njaboot gi xarit. ça va sant yàlla bu macha allah tey da nga waaw waaw tey dama teel a ji. Ah, yal na yàlla doole sutura bu baax. amiin amiin incha allah. naka maam ngaa bu baax maa ngi koy bu baax a baax a baax. mu ngi fi bu baax mu ngi naan nga nuyu kapaay. wallaay wallaay incha allah incha allah. incha allah waaw incha allah. ma waxtaan am na solo macha ah, allah. jërëjëf jërëjëf. naka li ngay wax am na moom lu am na macha allah. alhamdulilah alhamdulilah. dina tax ñu gën a góorgóorlu. gën a góorgóorlu kay xam yaa na yàlla. allahumma amiin <laughs> baax rek macha allah jërëjëf jërëjëf xari macha allah niil ma njaboot gi ñëpp incha allah jërëjëf kooku mooy xari Samba Dia macha allah di nuyu El Hadj Baye Ngala di nuyu ki nga xamante ne mooy Adja Mbëgge macha allah di nuyu njaboot gi yëpp fàttewuñu ña sa biti macha allah yalla na yàlla sàmmal ñu leen allo salaamaaleykum. salaam. maam ñu ngi ziar. waa ngi ñu leen di ziar waa rajo ziar waa rajo bi yëpp. fay ñëpp ak la koy delloo. leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm. allahumma amiin fay. imaam gis nga ak si dëkkandoo. Mm-hmm. dëkkandoo. a di dal sa kaw ñoom ñoo fay jiit kay mm-hmm. wallaay dëgg la. man yàlla dama la ay dëkkandoo yu baax a baax a baax. macha allah alhamdulilah baax. suñu yaay jooju ñuy Assa Ndiaye. macha allah ñun ñëpp. est-ce que Assaar ñëpp maa ngi di jaar. est-ce que est-ce baax lañ. est-ce que est-ce que xam naa moom. Mhm. diine moom l'islam moom diine moom du leen jëm. wallaay jërëjëf. ñu ma gis noon mhm. diine du leen jëm. macha allah. ko dugg ci këram doo xam ndax mu ngam. est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que. te duñu kenn problème. est-ce que alhamdulilah di jaar ñëpp. macha allah di baax ñëpp maa ngi leen di jaar fàttewuma kenn. jërëjëf waay jërëjëf Pape jërëjëf macha allah dégg ngeen seede bu rafet bi mu def ci ay dëkkandoom noonu la rek xam naa ñiy déglu ñëpp sit noonu la ñu melax seen i dëkkandoo yi kon nag dëkkandoo jàmma sa gën rafetal rek su ko defee ku nekk bëggal sa bopp li nga bëggal sa sa sa maroom allo salaam wa El Hadj Malick ñu ngi lay delloo ziar Guèye ah, macha allah Guèye dëkkandoo jàmm wallaay dëgg la dëgg la eh, boo ko ñëwee. Mhm. seeti imaam bi. est allah. boo nee cëpp allah. ne ko sa benn dëkkandoo moo fi dëkk. est-ce que est-ce que est-ce que. buñ la xamee si jàkk ji sax. Mm-hmm, mm-hmm. buñ la gëjee gis sax. Mm-hmm, dañ na xaar ñu seet suñu dëkk. wallaay dëgg la macha allah. tey boo xewlee balaa ñëw. tey bokk ñëw. dëkkandoo yee ñëw. est-ce que est-ce que est-ce que. surtout ñi nga bokkal diine. ñi nga bokkal diine est-ce que est-ce que. ànd boobu rek mooy gën a sax. allahu akbar jërëjëf. yàlla yàlla sax. amiin yaa rabbi amiin waay. tey ñun tamit soppay Fatina dëkkandoo ñu bokk ndey. wallaay yéen moom macha allah macha allah. yàlla yàlla def amiin امين واي جرجف امين يا ربي اللهم امين يا ربي امين يا ربي امين اه ما شاء الله الى جمالي كون داك دوغال نا سوبيب ما شاء الله يان يالا غودال فاني يان يالا باركيل نيوم نيب اي اي فرير حسير لانيو اي دوم لانيو اي ويجور لانيو ما شاء الله الو السلام عليكم السلام ايوا الى جدول سك نيغي سك سك سك سك سك ما نغي زيار ما نغي لاي ديلو زيار ñi waxtaan bi am na maanaam. jërëjëf Seck. dëkkandoo yaatu na. wallaay yaatu na Seck. kon rajo bi rek li li li mu boole fi mhm, mhm. diggante yi salaam. Mhm. Hmm? ku nekk di woo sa mboom di jaare. wallaay wallaay ndax rajo bee ko tax. wallaay wax nga dëgg Seck wallaay si la bokk askay wallaay wallaay. jërëjëf mooy yàlla jërëjëf Seck. yal na yàlla taxaw. amiin Seck yàlla sàmm la. amiin Seck sàmm borom rajo bi. amiin Seck ñu lay dégg amiin Seck yàlla may mu yëpp. amiin. ñu jaare soxna ñi ma. mu yàlla taxawu sàmm ma mu ngi lay dégg macha allah. jaare sama yooyu génn maa ngi aar maa mu ngi lay dégg jaar leen nii di leen ñaanal. collaborateur Saliou ma jërëjëf macha allah ñu yàlla taxaw leen sàmm leen amiin yaa rabbi amiin ñu góor ñi nag leen di ñaan rek ñoom itam jërëjëf yàlla taxaw leen rek amiin amiin ah, waaw El Hadj Papa Sow waaw jërëjëf ngala wallaay macha allah Papa Sow wallaay jërëjëf yàlla taxaw leen ah yéen moom macha allah jërëjëf yàlla defal jàmm yaa ah, jërëjëf yàlla la taxaw amiin yaa rabbi amiin sak amiin sak amiin sak sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Seck kooku mooy El Hadj Doudou Seck macha allah di kenn ci mag ñi gis nga ñoom bu ñu yëkkee kàddu rek macha allah sa xol dafay sedd yal na ko yàlla dolli wér dolli ko sutura mu nuyu ñu waa liberté yi ñëpp macha allah fàttew ñu de l' autre côté soxna Binta mbay liberté 4 macha allah soppe yi fi ngeen mën a nekk rek ñu ngi ànd àndax yéen ci marché yi ci fépp lépp rek ngir eh, la yonent bi waxoon Aline ne ko la an yahdiya allahu bika rajulan waahid xayrun min xamaron maim allo salaamaaleykum waa kay ñu ngi ziar pa warga wan mbay waaw ñu ngi ziar wan mën ah, maa la raw wan wan wan dañu yàlla amin wan amin wan ah, kooku mooy Baba Warga macha allah moom it ci mag ñi ñoom ku si yékki kàddu rek macha allah xam naa El Hadj Doudou Seck moo yékki fa mu toog xol bi manu ko muñ ñoom macha allah yal na yàlla guddal seen fan gis nga ñoom seen wax yëpp ñaanal ñu la encouragé àndax ndaw ñi kon nag yal na yàlla sàmm leen aar leen ci 88 628 10 95. kon nag dëkkandoo nga bañ ko lor mbokk yi. nanga góor góorlu ba yéene ko jàmm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne du ngeen mën a dugg aljana lu dul da gëm waaye du ngeen mën a gëm lu dul da ngeen soppante mooy nit ñi foog ñu soppante foog ñu wóolunte fogit ku ne lay lor nga gis ne lii bu jógee dal ci sama maroom dana ko lor naa fexe ba loola du egsi ci moom waaye naa mucc ñi ci des nañu loru naa am naflaay ñi ci des nañu sonn naa féex ñi ci des nañu xat mu ne loolu nekkul màndarga jullit bu baax kon nañu yenente jàmm roye ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonente bi ñëw nañu bés am néew buy dem ñu ne war na ci moom ñu ne ko lan moo war mu ne aljana war na ci moom ndax dëkkandoo yi ñoo ko seedeel loolu keneen ñëw mu ne war na ci moom lu war ci moom mu ne safara ndax dëkkandoo yi ñoo ko seddal loolu kon mbokk yi dëkkandoo dafa am solo lool Umar ibnul Xataab waa ji daf Omar daf ko seeti ne ko ndax am nga ku la xam mu ne ko waaw am naa ku ma xam maanaam waa ji la Omar laaj ndax am nga ku la xam mu ne ko waaw mu ne ko woo ko mu woo ko ñëw mu ne yow kii nee na xam nga ko mu ne ko waaw xam nga ko mu ne ko waaw xam nga ko mu ne ko waaw mu ne ko ndax dangeen mas fanaan ndax mas ngeen dëkk mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas ngeen bokk tukki mu ne ko déedéet mu ne ndax mas ngeen séq alal mu ne ko déedéet mu ne ko demal yow xamuloo ko kon yooyu yépp danañ ci natte nit ci wàllu dëkkin ci wàllu bokk yoon di dem ndax koo bokkal yoon rek ñaari xam jikkoom koo bokkal yoon ñaari rek xam jikkoom koo séqal alal rek di nga xam jikkoom ku mën a muñ la ku am secret ku nàngam la ku nàngam yooyu yépp mu ne yii boo ko séqula nit rekk xamuloo ko kon yooyu yëpp daf lay wan dëkkandoo ni mu amee solo kon nag mbokk yi nañu góor góorlu ba parfaire suñuy jikko ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn kuy am benn rang ndombal tànk bu ko gën kawe waaye gis nga ko loolu yëpp ax modesti bii mu am modesti boo xamante ne ëpp na dayoo modestie boo xamante ne daf ko wane ba ci li dul ay nit ba loolu moo tax ñëpp seedeel ko nangul ko ne kenn du moom seydul wujudi mais terewul yooyu yëpp mu mënoon xuggalaku yékki ay mbagg mu waroon wane ne man la waaye yëpp dafa wàcce boppam te sax di ñu wax naan man tawaadaa lillahi rafaahu képp ku jël modesti muy sa mbuba nga sol ko rekk yàlla dana la yékki lool kon yàlla dafa bëgg doom aadama ku modeste modeste nit mooy wane valeur doomu aadama bi mais kanta di wane ne man la déedéet xoolal rek sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ñi nga dëkkal am na ci ku am kàntan am na ci ku ko néew am na ci ku lot am na ku soxla ndimbal am na ci am na ci am na ci yooyu yëpp kon nag na nga góorgóorlu ci ñoom bul xam kan moo ñàkk ak kan moo am bul xam kan mooy jëfandikoo nàngam ku jëfandikoowul nàngam waaye yemaleel ñoom ñëpp xam na ay doomu aadama lañ yemaleel ñoom ñëpp xam na ay dëkkandoo lañ ku si rek nga jox ko wàccuwaayam ku si nga teg ko palaasam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la defoon moo tax suñu borom ne walakum fi rasulillahi uswatun xasana kon yonente bi mooy seen modèle na ngeen ko roy royloo mu leen kaneen yonente bi mooy seen modèle kon jullit bi na xool xam ne am na modèle muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ki nga dëkkal mbokk mi mooy xam kañ a ngay dugg kañ a ngay génn kan nga àndal koo àndalul lan moo fi xew lu fi xewul waaye kooku war nga ko ëmbal sutura kers ndax xamal na la lu bari kon li war sa diggante moom mooy nga jàppale ko li mbokk yi génn rekk wax moo ci am dëkkandoo jàmm ca gën ndax lu xew ñooy njëkk a teew kon ñooñu jar nañ bàyyi xel bu baax kon nag mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ba ko jibril waxool mu daan wax ne ma zaala jibrilu yuusini bil jahr xatta zanantu wu sa yuwarrisu ni loolu la mas di doxal ci wàllu dëkkin di leen nemmeeku moo tax bu masaan julli bu noppi dafay laaj ndax am na ku daan ñëw te ñëwul su dee ngànte la ñu seeti ko su dee aajalo ñu ñaanal ko massawu ko su dee soxla la ñu jàppale ko fu mu war dem ñu gunge ko yeb dal mana don yitté wo mbiru julidi motax mu waxat waxam ju reey jene man lam yahtam bi umur al bi umuuri almuslimin fa laysa minhum mu ne ku yitté wo wol mbiru julidi rek dafa melni ni bokkuloo ci ñom di len leen tekki wul nemmeeku ko ngir xam ci lan la ne ngir ëllëg nga gatchel ko dedet waye xam ci yan soxla la ne waaw diw day fan yi gisuma ko allo salaamaaleykum. bisimilah ah, allo salaamaaleykum. maaleykum ngi ziar bu baax Sow. ñi ngay ñaanal ñaan. amiin Sow. ñëpp gi lay ñaanal. jërëjëf Sow. ñoom sant bi lañ gërëm. jërëjëf Sow. ñaanal ñëpp. ñëpp a ngi la koy delloo. baal ñëpp a. jërëjëf Sow. di baalu ñëpp a. ñëpp a ngi lay baal Sow. yal na yàlla boole baax. allahumma amiin Sow. kon yal nañu ko yàlla defal. allahumma Sow. su mu gën a rafetee rek yal nañu ko yàlla. amiin Sow. ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa nuyu allah Diouf fekk moom mi. Mm-hmm. di nuyu Pape Mor ñoom. jërëjëf Seck. Ndiala ñoom. jërëjëf Sow. Guèye ñoom. Mm-hmm. bay yu ma kenn. jërëjëf jërëjëf bu doon suma sago rek nga. jaar ci ñëpp. li nga leen wax. Mm-hmm. dégg naa macha allah li ma la yóbbante woon ñëpp. waxal la Sow wallaay Sow. bàyyi góor bàyyi Sow jërëjëf di ñaanal ñëpp. amiin Sow loolu yàlla. amiin Sow ci suñu jàmm ak salaam. amiin Sow defal ko Sow amiin ak mboolem Sow ci barke yonante bi. sallallahu alayhi wa jërëjëf Sow ku kooku mooy góor gi Amadou Sow rajo yokkute mooy wax rajo bay daare macha allah kon nag góor gi moom macha allah gis nga ñoom ñëpp eh, ku ci dugg rek macha allah waaw ku ci dugg te te wax dëgg yàlla mooy li may wax ci ñoom rek gis nga ñii liñ naan bu fi yemoon mu neex ay dëkkandoo lañ yoo xamante ne ay mag lañ waaye ñu ngi jokkoonte téléphone di waxtaan mu mel ni ñii macha allah te yooyu yëpp gis nga El Hadji Malick ndongale ñuy ràbbale loolu le Pape Mor Libaas fii te boor bële ñeneen fii te fële macha allah yal na yàlla famille la daal famille la. kon yooyu yëpp mooy Safina kon nag ci 88 628 10 95 mooy gu mu jokkoo gi ku fëgg rek ñu ubbil la incha allah kon nag mbokk mi na nga góorgóorlu ba roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu royloo ñu góor góorlu aussi ba jamono benn ñu këf ba jamono benn ñu këf baax na lool nit ki méngoox jamono. xam jamono nan lay doxee nga man dox àndax jamono waaye nag li nga xamante ne mooy sa base fexeel ba bul ko wàcc mukk dañ naan ànd boo dem rek fekk fa borom toog bul wàcc sa ànda mukk nag kon nanga góor góorlu sa cosaan say aada say valeur parce que ñun dañu am ay valeur yoo xamante ne lii Occident tey liñ naan mondialisa mondialisation tey al awlama kon adduna bi yëpp ubbeeku na benn cité la d'accord benn cité la waaye gox bu ne am nga loo xamante ne nii mooy seeni aada mooy seeni cosaan ñun dafa bokk suñu aada suñu cosaan wàllu dëkkin wu rafet wàllu dëkkandoo kon lislaam moo ko fi njëkk indi waaye tamit fekkoon na ñu nit ñu xam loolu le nga xamante ne foo dugg rek ñu ne la bismillah kalante gi ñëw waaw noo sant mu ne kii day sàmba la kii waa mbayeen bi kal ko wala ñas la wala ture la kii noo sant njaay waa njóobeen bi kal ko kii noo sant kële kal ko yooyu day indi dëkkin wu rafet day indi dundin day indi confiance foo dem ñu ne la bismillah ñëwal ci añ bi ñëwal ci reer bi ñëwal ci nàngam foo dem ñu dalal la dalul tuuti door a dem mais loolu amul faneen kon dëgg yooyu mbokk yi nañu fexe ba nañ ko inculquer waat ci xale yi nañ leen xamal suñuy valeur mais léegi nag boo xoolee majeure partie ci temps bi ah télévision bi rajo bi portable yi dafa këf njaboot gi wala boog daf ko bëgg këf suñuy loxo bëgg jàngal culture civilisation ñeneen ñoo xamante ne seen culture seen civilisation duñ ne sax xëñ na dafa yées a yées a yées waaye suñu bos melul ni ñoom kon nañu góor góorgóorlu mbokk yu wàllu dëkkin nañu ko rafetal bu baax nañu xamal xale yi lan mooy valeur doomu aadama lan mooy valeur dëkkandoo di nga tukki léeg-léeg sa dëkkandoo mooy taxaw di nga génn dem liggéey sa dëkkandoo mooy taxaw sa dëkkandoo dana dajee sa njaboot ci bërëb moom moo fay nekk seen wayjur seen yaay seen baay seen mag seen ndiyaay seen lépp kon nag su ko defee dëkkin wu rafet rek moo leen koy may góor góorlu ci mbokk yi dëkkandoo ñu yaatalal leen ubbil leen bunt yi lépp lu ñu soxla te mu jàppandi ci yow nga yéwénal leen ko xam na yàlla kat mooy def wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas mbokk yi dëkkandoo daal li mbokk mi wax rek yaatu na lool macha allah foo ci dem rek da nga fay fekk dëkkandoo kon nag mbokk yi yal yàlla defal tawfiix yal nañu yàlla defal sutura bu baax ba ñu xam lan mooy valeur dëkkandoo la sa gën a am solo nag mooy ci wàllu dëkkin ci tomb yi nga xamante ne danañ ci ñëw léegi mooy nga fexe ba na nga tegoo ay lorom ndëkk dafa mel na ku ne ci ligne bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. wa rahmatullah. maa ziar. ñu ngi delloo ziar. waxtaan wi neex na. macha allah. ñu ngi yalla yal na yàlla kontaan. di la ñaanal jàmm. ñu ngi ñu ngi la koy ñaanal. waaw kay. kooku. ah Kole baat bi dafa xaw a soppeeku de. dëgg la. mbaa da nga soj wala. non non tuuti rek. ah d' accord kon coono bi la. alhamdulilah. naka waa Cambérène sant yàlla ya, bu wér. Ya. tey de ñu ngi ci dekkendo ma ne de ñu ngi si dëkkandoo. Eh? waaw waaw amna solo ñu ngi deglu amna solo torop ma sha allah alhamdullilah alhamdullilah yal na yàlla ya, dolli sutura. allahumma amin amin ya rabbi kon nag dëkkin wu rafet rek mo am solo. waaw waaw ndax si jaamu yalla la bokk inshallah waaw kay jere jërëjëf ñu wa kambareen ñep inshallah allah. macha allah jërëjëf kooku Collé Dia allah di ko nuyu di nuyu dëkkandoo yëpp di nuyu yaa awa macha allah di ziar ñëpp di nuyu waa ahlul bayti ñu sa yoof ñu sa kàmbareen macha allah di ziar ñëpp di ziar suñu soppe suñu xarit suñu lépp euh, chérif Ousseynou Laye mu ba Abdallah ñu ngi koy ziar macha allah kon nag ci 88 628 10 95 li ci am solo fexe ba tegu ay loram. wax nañ la bul ko lor su soxlaa nga taxawu ko waaye na góor góorgóorlu ba loram yi na ko tegoo ndax doomu aadama dana la réere lool dana la réere allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Eh, ñu ngi lay ziar bu baax. sant yàlla bu baax. alhamdulilah kontaan yàlla kontaan. dëkkandoo alhamdulilah. waaw gars allah. waaw yal yàlla dëgëral. allahumma amiin yaa rabbi. ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax. jërëjëf ah sëñ daam. ngi la koy delloo. ah ñu ngi raxarlu. jërëjëf ma macha allah macha allah jërëjëf jërëjëf yal na yàlla fay jërëjëf daam jërëjëf yal yàlla dolli sutura jërëjëf kooku mooy daam ñang ñoom it ay dëkkandoo leen ay wëllër leen yu baax yu yàgg lool macha allah kon nag euh, yal na yàlla sàmm leen ñu ngi nii njaboot gi foofu ñoom ñëpp ñu kenn kon nag si 88 628 10 95 mooy gumu jokkoo gi di nemeku maladi fuñu mëna nek ci hôpitaux yi ci kër yi yalla yàlla safara len ñi am ay soxla ay xat-xat yalla yàlla tegg yépp yalla yàlla doli sutura yalla yàlla def dëkkin yi rafet lol yalla yàlla def dëkkin wu rafet su ko defee ñu bañ ñu ñu tegoo seen lor waaw moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu fatali waxu yàlla bi mu naan idfa billati hi ahsan waaw idfa billati hiya ahsan maanaam lu ñaaw lu ñaaw lu ne remplacer ko lu baax nit ki yëkki kàddu safaan jëme ci yow yëkki kàddu yiw jëme ci moom moo xam ci wax la walla ci jëf la lamu la lor ci làmmiñ wala ci jëf la fexeel ba remplacer ko lu baax waaw moo taxoon mu ne wali wali man sabara wa xafar inna zalika la min azmil umur te loolu rek moo mën a am muñ jéggale mu ne loolu cër la waaw cër la cër la waaw loolu cër la kon dëgg nit ki war na góorgóorlu ba dëkkandoo bi nga tegoo lor yi waaye bul ne lu mu ma def rek naa ko yóbbu ci yoon dina xam ne dëkk bi dëkku yoon la naa ko yóbbu ci yoon waaw dëkku yoon la naam waaw waaye nag boo nee muñ nga jéggale te yàlla tax moo gën waaw nga dolleeku yiw ci moom nga dolleeku yiw ci moom waaw kon bul ko topp ci lor gi mu la lor nga ne naa fayuntoo ak moom kon mbonte wax lu ñaaw wax lu bon day gën a siw day gën a bari waaye bu waxee sofaan waxal yiw bu defee sofaan defal yiw nga bàyyi ko moom waaw waaw bokk na ci yooyu góorgóorlu ba di ko nemmeeku moom sa dëkkandoo tafaquduhu waaw wa xadaa il xawaaij yaani xawaaij yi waaw di ko di ko nemmeeku sa dëkkandoo la waaw jaadu na nga di ko nemmeeku di fëgg buntam di ko laaj jàmmam jàmmu njaboot gi di xam lan lañu tooge waaw loolu moo lay may sa dëkkandoo boo waree wax di nga wax soo waree làmb sa poos nga làmb sa poos soo waree soo waree yooyu yëpp parce que la la koy may mooy nemmeeku gi nga koy nemmeeku parce que di nga xam ne ah fii de soxla nangam gane si na fi waaw soxla boobu nag moo xam looy wax la wala sol sa dàll àndax moom la wala làmb sa poos la lu mu mën a doon ci ax dëkkandoo nga taxawu ko ci loolu waaye loo ci defit na nekk sirran mbokk mi si sirran mu nekk loo xam ne ngir ngis tal boo ko defee àddina bi yëpp yëg ko waaw ah, man de budul woon man du ñu reer budul woon man dey du solo budul woon man budul woon man waaye yow budul woon yàlla ndax la nga yor di nga ko yor waaw budul woon ndax ka la jël ci entreprise am ndax la nga am di nga ko am budul woon ka la tettal ba ngay dem ndax la nga am di ko am kon ku si ne budul woon man rek keneen dina taxaw ne budul woon kon yàlla dafa bëgg ñuy suturaalante ndax ku si ne da ngay jàpp ne yàlla mo yere yi mom yàq biddu waaye nag wa yab sut yàq bi léeg-léeg mu khatal wërsëgu nit amna lu tax mu def ko waye amna ku mu tek ci boram yab sutu moom yàlla mu yaatalal kokole mu ngi xol ñom ñaar seen dëkkin nan la seen relation nan la kima ma yaatal ci mom ndax dina bàyyi xel kima khatal ci mom kima khatal ci mom ndax mom dina muñe liko yàlla tek ki ci boram yàlla yaatal ko lol ndax dina ko ko muñe kii ma yaatal ci moom ndax dina sant yàlla ci xéewal gi mu ko defal jaarale ko ci ki nga xamante ne mu ngi ci booram te yàlla xatal ay mbiram kon ku ci ne rek yàlla daf la nattoo sa moroom waaye boo gàttee xel nga mel ni man la ngay wax la ngay gëm mooy ne sama ngóora sama xam-xam sama njàmbaar sama sama sama rek ngay def waaye yàlla subhaanahu wa taala mooy boole doomu aadama mooy boole ay nit ngir nattu leen di xool kan moo gën a rafet mu jëfe te loo ci def ngir yàlla rek def ko la mu naan dama leen jox te soxlaaw ma ci dara man yàlla kon it yéen it da nekk seen biir moo tax mu ne wa ma li ahadin min ni'matin tujza illa ibtihaa wajhi rabbihi al mu ne ku ma jox rek am na lu tax ba ñuy wax naan Abu Bakrin Sadiq gaa yi naan eh day goreel gaa yi rek pour am fi aw tur moo fi goreel moo fi moo fi moo fi mu ne déedéet dama ko def rek li wajhillaahi te yàlla moo ko tontul boppam ne wa maa li ahadin min ni'matin tujza abu bakrin li ngeen di wax newul ci moom xelaatu ko sax dafa goreel jaam yi pour l'islam am doole daf leen goreel pour ñoom ñu mën a jot seen bopp daf leen goreel li wajhillaahi subhanahu wa taala waaye jublu ci tur jublu ci laneen kon it yow it booy dimbali sa mbokk booy dimbali sa dëkkandoo na nga ko def sirran na nga ko def loo xamante ne li wajhi llaahi nga ko defee su ko defee yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon nag tafaquduhu di ko nemmeeku yooyu mooy tax tahaadu tahaabu da leen joxante ay kado ngeen di soppante la yonente bi wax sa dëkkandoo nga seeti ko amaana tey nga yóbbul ko banaan wala pom wala walla walla wala wala yaa xam lu jàppandi lan lay def loolu cofeel lay def yërmande lay def dal xel kóolute moo taxoon yonente bi ne yàlla rëbb na wala boo gërëmul ku ku ku ku xéewlu ba ba maara day taali te sa dëkkandoo mu ngi xiif mu ne kooku ngëm yàlla newul ci moom lekk bu suur te dëkkandoo mu xiif moo taxoon mu doon wax saxaaba ba ne ko boo toggatee ñam dee ko sakkanal del barayal ñeex ma ndax nga jox si sa dëkkandoo waaw ndax nga jox si sa dëkkandoo waaw nga rafetal la amaana mu ne ko xet gi dana egsi si moom waaw mu ne ko nga musal ko ci waaw mu yëg la ngay yëg kon nag su ko defee yooyu nemmeeku dëkkandoo dafa am solo lool nemmeeku ko taxawu ko nekk ci booram bu dee bànneex la nga ndokkel ko waaye bu dee tiis la nga massawu ko ci loolu kon nag yonent bi sala loolu moom la defoon ba nga xamante ne euh, Abdullah ibn Omar rendi na gàtt waaw mu ne ko ndax jox nga seen dëkkandoo yahud bi mu ne ko déedéet mu ne bon dëkk su ngeen defatee lu ni mel na ngeen leen ci jox bokk na ci yooyu nga sutural sa dëkkandoo sàmmal ko deram waaw sitruhu wa siyaanatu ardi nga fexe ba sàmmal ko deram sutural ko lool waaw ndax na ngeen xam na yàlla mu ngi fuglu ñëpp mu ngi bàyyi xel ñëpp kon nag nga fexe ba suturaal ko loo ko xamal rek dëkk bi yëpp yëg ko déedéet loolu doxul kon na suturaal sa dëkkandoo ndax yàlla mi nga xamante ni moom tiim na ñëpp am na yooyu def bu ko xawi woon rek musiba am waaye mu ngi lay suturaal mu ngi lay suturaal kon nag yooyu mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ak yeneen ak yeneen ci wàllu dëkkandoo nga xamante ni giirug dund la mbokk yi ndax amul kuy dund ci kaw suuf ba doo nekk ak dëkkandoo même gis nga boo fi jógee ñay taxaw ci defar gaax ci yóbbu gaax ci gunge ko yëpp ba sa ñaan nga dëkkandoo yi rek lay doon kon amul kuy dund ci kaw suuf te doo nekk ak dëkkandoo amul bés bu jant di so te nekkoo dëkkandoo amul bés bu jant bi di fenk te nekkoo dëkkandoo amul bés bu guddi di jot wala bëccëg te am nekkoo dëkkandoo kon mbokk yi dëkkandoo giir dund la kon bés bu ne rek mën nañu waxtaane ci dëkkandoo te loolu yëpp yonente bi sallallahu alayhi jàngal nañu ko lu mu ñu waroon wax ci dëkkandoo rek wax nañu ko waaye li ma wax rek nañu góor góorlu yar si njaboot gi waaye tamit dara bañ ñoo këf nga xam ne dañuy dem ba jàngal la ne la bopp sa bopp rek boobu doxul déedéet nañu nekk ñoo xamante ne ñu social la ñuy doon lu ñuy am nañuy partage mbokk yi lislaam loolu la jàngale nañuy partage nañuy bokk gis nga même boo ko seetee kër gi nga toog waxtu añ jot ñum ma ñëw oo famille bi yëpp waaw waa rajo bi ñëpp ñëw bokkandoo benn ndab ñu sukkandoo di sexandoo mu ne barke boobu ci am amul faneen waaye boo demee ci ñeneen ñi nga xamante ne diine lislaam xamuñu dëkkin xamuñu dimbalinte xamuñu bokk xamuñu loolu ku si ne sa assiette ngay jël rek beru sa boor loolu mu lay tàmmal ku ci am tuuti rek la ngay njëkk xalaat mooy beru dem ku am tuuti beew dem ku am beru dem ku am beru dem kaña la ñeneen ñi di suqalaku mbokk yi kon nag lii suñuy valer nañu ko fexe saxal nañu ko fexe dëgëral mbokk yi am am baax na naam waaye fexe ba ñëpp am mbégte baax na lool waaye fexe ba ñëpp bég teggeeku ci ay njaxare ay tiis baax na lool waaye fexe it képp koo ci mën a génnee it loolu dafay gën a baax kon yooyu yëpp daf lay jàngal nga nekk koo xam ne ku solidaire ngay doon ku mën dimbali ndax yàlla mu ngi naan wa taawanu alal birri wala taawanu alal ithmi wal udwaani mbokk yi kon nag waxtu waa ngi dem dëkkandoo bu ñu ko toppee incha allah xëy na yi si des mardi bu ne rek imaam Moussa ah dëkkandoo jàmm sa gën macha allah di ko nuyu bu baax a baax su ko defee dinañ ci ñëwaat laaj yi nag amoon na fi ay laaj waaye xëj na léeg-léeg li ñuy wax rek ñu dugg ci thème duñ mën a xëj na indi yeneen waaye incha allah ñu ngi jël laaj yi bu baax yiñ si war a càmbar ñu ngi koy càmbar bu baax su ko defee yàlla yàlla defal ñëpp taw fii ñi nga xamante ne ñu dugg en waaye ñu ngi déglu ñëpp yëg nañ seen yëg-yëg xam nañ ne yéen a ngi ànd ak rajo bi muy Safina 98 point 2 la rek su ko defee nga xam ne rajo bi moom macha allah gaal la daal ko xam ne gaal ak texe la kon nag waxtu julli góor gaa ngi ñuy déglu di ko nuyu di nuyu maire Sow macha allah maa lay ziar bu baax a baax yaay booy di nuyu secrétaire jay na ba macha allah njaboot gi fàttewuñu kenn ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp macha allah Amadou fàttewuñu leen yal yàlla sàmm leen aar leen. Ngor Okam Yoff waa Cambérène ñoom ñëpp waa Parcelles macha allah ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu fàttewu ñu kenn yal na yàlla sàmm ñëpp defal leen sutura su ko defee waxtu julli mbokk yi ci semaine bi su ko defee comme ni ñu koy baaxoo di def rek euh, fajar gi incha allah nga xam ne waxtu bu am solo la danañu salaatu bu 6 heures 24 jotee 6 heures 24 salaatu jot na 6 heures 39 bismillah ñu julli 6 heures 24 salaatu jot na. tisbaar deux heures et quart takkusaan cinq heures moins le comme ni mu xew amee ba léegi timis juróom-ñaari waxtu bu tegalee fukki simili ak ñeent muy 19 heures 14 geewe 20 heures wala bu ko rombee tuuti nga xam ne jot na timis mu ngi ci 19 heures 14 juróom-ñaari waxtu ci ngoon bu tegalee juróom fukki simili ak fukk ak fajar gi 6 heures 24 kon nag mbokk yi di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw ci beneen thème si xam sa diine lépp pour ñu xam diine macha allah bu baax a baax lu ci ne rek la yàlla waxoon ne maa farat naa fil kitaabi min shay'in kon nag di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته